mooy mhm. eh, bis bu xew bis ban moo xew mooy kiñ daan wooteel moo wooteelu tey mhm. ki nga xam ne moom lañ daan wax ne moom la ñuy wooteel nangam mhm. tey moom moo ne maa wooteelu nangam lan la woote bis boo xam ne ni bisub ñaan la bisub ngërëm la bisub murit yi la nag bisu nattukaay yi itam la bis la boo xam dañ ciy nattu lu bari loolu moo waral tey jàpp naa ne sax sañ sañ sañ sañ Modou Kébé yaa ngi wax sax ni deux plateaux mais dama naan trois plateaux la ñu am tey ñetti plateau la ñu am tey ndax euh, bu fekkee ne ñu ngi fas yéene seggoo feggoo ak euh, télévision Almouridia jàkkaarloo ak télévision Touba TV euh, ci njiital jëwriñ Alaaji Mbàkki yu fay jàkkaarloo ak télévision Lamp Fall TV dafay mel ni kon boole nañ li nga xam ne mooy daara yi sëriñ bi tey bu ñu toogee nii sëñ Fallou Galass si la toog na la jàkkaarloog ñun wala yor lépp lu jëm ci modération plateau bi plateau bi tey dañuy wax sax ne méga la waaye dafay mel ni haute la sax parce que li fi daje moo tax fii nag nekk ahlu xasida mm. muy troisième plateau bi nga xam ne tey njàng mu neex dina génn waxtaanu leer dina génn waaye pas-pas yi dana yeesaat sunu plateau bii nu am nag nun mm-hmm. riche na. waaye deuxième plateau bële. ne ko maa la gën a riche. ñetteelu <laughs> plateau bi ne maay mbégum murid yi. kon sëñ Fallou dana présenté. li nga xam ne mooy xew-xew bi. xew-xew bi nag mooy fukki fan ak benn. di la 11 août. àllarba incha allah muy bisu xasaayid. suñ ci ñaanalee sëñ Muntaxa nag dañuy ñaanal Cheikh Mamadou Bachir. mi nga xam ne ni moo yor kaddu yoon wi. ñaanal ci itam. sañ euh, sëñ euh, Amsatou Mbacke mu sëriñ Chouaïbou waaye jëriñu su Jóob ci leeral ci biir jotaay bi danañ ñëw ci taxawaayam bi nga xam ne ni Cheikh Madou Mountakha jox na ko ko sëñ Kébé d'accord suñu plateau bi nga xam ne moo nekk nii nag sëñ sëñ am mhm. ñan lañ ko nar a tey ji nag euh, xam nga ne noo ngi feggoo ak euh, sëñ Lamine Diouf mhm. nga xam ne tey fii ñu toog fees na ko dell mate ko sëkk ci yeesal ak leeral liñ fi bëgg a yëkkati mhm. waaye ñu fekk ak feggoog nag ñaari ñetti soldaar yi sëñ Tuubaa kii suñu waajur la woo xam ne ni à travers national international fu ne taxaw na fa yëkkati kàddu ngir fas yéene leeral ak fésal njàngaleem sëñ Tuubaa muy sëñ Bosora Samb waaye feggoo ak ki nga xam ne tey soldaar la uh-huh. dañuy wax ne sax takk na garaat général ndax taxawaay bi mu am ci réew mi ak bitim réew muy sëriñ Gana Messere Maxtaar uh-huh. mi nga xam ne benn masque la am muy sëriñ Tuubaa waaye nag sëñ euh, sëñ Alioune Diop uh-huh. mi nga xam ne tey bu ñu wax xaside yi moo tax ma ne troisième plateau kon tey moom mooy présenté troisième plateau bi ci xaside yi ah. taxawaay yi ak waajtaay bis bi kon plateau am daal riis na mhm. ñi ñu am itam riis nañu ko waral eh, sëñ Kébé dëgg la jërëjëf sëñ baax baax yaakaar naa nuyoo bi matale na mhm. présentation yi aussi matale na dañuy bàyyi rek suñu bàyyi moom tamit sëñ Fallou Gall Sylla mhm. moom it euh, waxee woon léegi présenté it ay am ak kuréel a jàng ba ci xaside nga xam ne si moom lañ fi nar a yëkkati sax lépp danañu si ñëwal bismillah sëñ sëñ Fall aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin la hawla wala quwata illa billahi aliyil azim barke borom Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëñ am maa ngi lay nuyu di jaarale sama nuyoo ci ak sëñ Asan di nuyu plateau boobu nga xam ne moom laa jàkkaarloon sama nuyoo jaar ci ñoom nag jàll ci sëriñ Yuusu mi nga xam ne mooy jëwriñu barab bi tey jii di fàttaliku jàmbaar ja wala général ba boroom laxasaay ga di sëriñ Atou Diagne eh, yàlla na yàlla dolli ngërëm lu yàlla ci moom yaakaar naa ne tey jii ko ko fekk dana yëkkatiwaat ñaari loxoom di bakku xam ne sëriñ Touba eh, daanati na nuyoo boobu nag jàll ci eh, sëriñ Mouhamadul Bachir ibnu Cheikh Abdoul Khadir mi nga xam ne moo yore kàddu yoon wi te ko sëkk nag. jàll nag ci ki nga xam ne doomi daara la di doomi xaside yi di sëriñ Amsatu mu sëriñ bi nuyoo boobu ma jaarale ko ci ñaari jëwriñam yi mu fi yebal nga xam ne sëriñ Muntaxa moo wax ne lu waaye di def ci xaside yi moom nga ciy dimbale mu jàll nag ci boroom xar kanamu mbég bi ki nga xam ne doom day dindi njàqare xar kanamam day dindi coona mu di Cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal te gën a dolli ak wéram ba naa lii mu naalal lislaam yëpp mu àggale ko euh, Eh, yaa ngi wax benn plateau ñaari plateau ñetti plateau mm-hmm. waaye ndax plateau yi tey mënees na koo lim mm-hmm. ndax ña toog mm-hmm. cay déglu ay plateau lañ ndax ñoo ñu ay boroomi xam-xam lañ te dund yoon wi nañun am na yeneen kuréeli xasida yu toog di ay plateau ñoom it fa ñu nekk suñu déggee kuréel bii di yëkkati ña ngay réem ca suuf ñoom it di beneen kuréel boo xamante ni bii ña ngay dund loola su ko defee nag nga soog a ñëw ci ñaari plateau yi nga xam ne ñoo jàkkaarloo ma feggoo ci sama loxol ndijoor Serigne Ahmad Touré yéen ñëpp ngeen miin ko fii ci daara ji nga xam ne mooy almuridiya beneen bi ma feggoo ci sëriñ sa Jaxate moom sëriñ Moodu Xayri moom sëriñ Amsatu Jaxate mhm. ma nga xamante ni bii sëriñ Tuubaa moo ko daan wéttali ci wet yëpp moom it mu jàmbaar ci yoon wi euh, di ci liggéey liggéey bu am solo mhm. ànd ak sëriñ Aliou Diop mi nga xam ne sëriñ sa moo leen fi yebal waaye ñu feggoo ci ak kuréelu Hizbut Tarqiyyah mhm. yaakaar naa ci njiitu sëñ Seexuna Jaañ yaakaar naa ku dund koor gi dund màggal gi bu ñu nee kuréel baa nga nee toog da nga yàkkamti ñoom ñu yëkkati waaye feggoo ci nag ak yeneen jàngkati xasida yu ne ci suuf yoo xamante ni bii romb naa ci ku mel ne sëñ Ibrahima Guèye ak euh, euh, sëñ Abdoulaye Touré. kon yaakaar naa ne waxtaan wi dana am solo. dana am solo ci ni nga xam ne ni la programme bi bëgg a tëddee. mooy euh, programme bi bis la boo xam ne du xalaatu kenn maanaam. lu wàcc ci bopp seex Muhammadul Muntaxa la mu mel ne luñ ko ilham la wala luñ ko waxyu la lu mu ci mën a doon mu jóge ci ndigalul yàlla directement jaar ci Seexuna Ahmadul Xadim wàcc ci moom mu tànn bis boo xam ne lu bari da cee daje ndax buñ delluwaatee ci premier août yaakaar naa ne la sëñ bi xëye woon ca dimanche am ja ca jeewal le onze août ndax le dix août la jóge Mbàkke Bari bu ñu xoolaatee itam ci benn panu tam xarit wala ñaareelu fanu tam xarit ni ko sëñ Muntaxa waxee mbooleem nitu yàlla yëpp maase woon nañ dem njaareem di préparer ngir gunge sëñ Touba ànd ak moom ñëw Touba kon bu sëñ Muntaxa tànnee ci mois de août le onze août jàppoo benn fan wala ñaari fan ci Muharram ne damaa bëgg ñu def ko bis boo xam ne day saf sàpp xasida day saf sàpp xasida loolu danañ ci ñëw ndax mbooleem turu yàlla wu nit yor di ko wérd wala as istixfaar booy def wala cant gooy def ci yàlla lu nit di jaamoo yàlla sëñ Tuubaa wax na ko ci xasida yi mooy mooy loo xam ne boo ko boo ko jëlee def nga jawfal fara wala def nga ndar képp nga mbooleem xeeti jaamu yàlla yi mhm. maanaam bu ñu yendoo jàng xasida yi mbooleem xeetu jaamu yàlla yu ab yonent masaa jaamoo yàlla wala nitu yàlla mas koo jaamoo yàlla mhm. jaamoo nañ ko yàlla ci pencum Tuubaa mhm. loolu dañ ci dikk muy liggéey bu am solo moo tax danañ ci ànd sëriñ Busra bu ubbee jataay bi foofu xamle kan mooy Cheikhuna Ahmadul Xadim ndax yaakaar naa ne dana baax ñu jaadu ci bala ñoo tàmbali jataay bi ki moom jataay bi ñu xam mooy kan bu ñu duggee ci loolu bu dellusiwaatee danañ jox sëriñ Ahmadou Touré mu ñëwal ñu ci jëmmi xaside yi jëmmi xaside yi nga xam ne moom la sëñ Muntaxa wooteel xaside yi nag ku ci dugg nag moom faaw nga dégg am njàng moo tax danañ delluwaat ci kuréel bi ñu yëkkatil ñu ay bayti xasida ñu soog a su ñu dellusiwaatee sëriñ am sa jaxate mi ngi fi dana dugg ci njariñ loolu ak ci wàllu soññe bi waaye xam nga sëriñ Gànna ak sëriñ Busra bu ñu jàkkaarloo mhm. damay ragal ne ñaari plateau yi mhm. bii day doon jinne bee di njuuma bi <laughs> plateau bii dama koy seq ak ay jinne mm-hmm. yow boobu nga seq kook ay njuuma mm-hmm. ndax yaakaar naa diggante sëñ Bousra ak eh, sëñ Gànna mm-hmm. su sëñ Lamine jàkkaarloog sëñ Aliou Diop sëñ Lamine di delluwaat ca mag ña sëñ Aliou di defaat référence ca mag ña kenn ku ne dana la génneel mag mu bees tàq moo xam ne sëñ Tuubaa ko defaroon tey nga xam ne tey nga koy njëkk a dégg Gànna delluwaatal la ca mbindum mag ña Bousra dellusiwaatal la ca minaan eh, mbindum Cheikh Mahamadoul Basir dama yaakaar ne daneen dem ba waxtu wi jot adduna bépp taxaw nañu bu leen arrêté plateau bi dañoo war a jàll loolu nag lan lay préparé mooy bis bu mag muy mercredi la onze le onze août bis bi sëñ Muntaxa woote nga xam ne Touba fépp suuf wu ne dafa war a dégg xasida dafa war a saf sap xasida tàmbale ko ci bar bi wër sëñ Touba ba ba ngay ñëw ci yokk bi ba ba ngay génn yokk bi ba ñëw ci tëli bi ba dem daaru minam dafa war a daj kap la sëñ tubaa doon wax yonante bi jaayante ci woon ci juróom fukki weeram yeeg ñaar yi juróom benn weer mu koy tagg yii mu di julli ci moom ñu diko waxal seigne touba nak mo tok di deg xamna li moko don wax mustafa sallallahu Alaihi Wasallam sallam mhm. yaakaar naa ne buñ ci seigne am lepp lu seigne mhm. muntaha wax boromam mhm. ci bis bobu lolu dana am la plateau bi lañ fasiyene and ak yeen inshallah rabbi di ci jajeufal nak site internet yi nga xam mbollem site internet yi ci rew mi yëpp kenn ku ci nek yaangi connecté wu tey ji ko ak mouridiya tv and ko ak touba tv and ko ak lamp fall and ko ak radio yi fi nek ma ngay def direct ci ecap ma ngay def direct ci ben fm ma ngay def direct ci lamp fall 101.5 ci dakar ak yeneen raj yi nga xam ni fu ko waay jàpp tey jii boo bëggee xam li ñuy woote mooy lan soo ko dégloo incha allahu rabi da nga ko xam bis la boo xam ne daal mhm. bul ko wuute dëgg la <laughs> jërëjëf kon euh, sëñ Fallou Gallas Sylla ñu ngi koy sant bu baax a baax yaakaar naa nuyoo bi matale na mhm. euh, leeral yi aussi matale na ci mhm. wàllu programme bi ak li nga xam ne si noonu la guddi gi nar a demee tey yaakaar naa tey kenn fas yi fasul yéenee euh, ñu nañ ko après rek ba ñu ngi naan ñu ay deux heures de temps trois heures de temps mais man nee na waxtaane sëñ Tuubaa moom bu mu am fu mu nañ waxtaan rek ba doyal ah yëpp bëgg sëñ am su ko defee léegi li ñuy def mooy mhm. sëñ am euh, dama lay bàyyi ak sëñ Bouchra mhm. léegi nag ni ñu koy duggee mooy mhm. ku duggu mun mën a nuyoo ba pare jaaree foofu rek euh, tàmbali li nga xam ne si moom mooy waxtaanam jërëjëf euh, sëñ Mouhamed kebe jërëjëf sëñ fàllu ñi ngi ziyaare waale baax sëñ Ahmadou Touré kon ci xaside yi laa xalaatoon mhm. euh, ñu ñu daw balaa maa ñëw sëñ Bousra xanaa ma delloo nuyoo sëñ Ahmadou Touré mële euh, bi may nuyoo léegi xel bi da cee fatto ak sëñ Amsatou Diakhaté ñu ay boromi xam-xam yu mag mhm. di ay kilifa mhm. nekk ci télévision bi ngeen di bokk ak émission bu mag boobu di As-Sabah ñu di ko ziyaare bu baax a baax di ko jox wàcc waayam euh, mook sëñ Amsatou mi nga xam ne sunu xarit la kon xasida Euh, lañu wala ñuy ubbee sëñ Mamadou dama lay bàyyi sëñ Abdoulaye Touré ngi fi nga xam ne moom médaille médaille bi sëñ Bousra takk sëñ Gana takk ko sëñ Moudou Lamine takk ko ah sëñ Amsa sëñ Ahmad moom la takk ci xasida yi kon nag euh, sëñ sëñ bi waaye kuréel gu jëkk gii nga xam ne bu ñu ko wanee bokki taalibe yi li nga wax ne damay ragal ñu ne li fekk nodduñu fajar bàyyi fàllu buñ fay bañ bàyyi ci loolu la jëm kon dañuy dem <laughs> directement ci troisième plateau bi kon ci sëñ Abdoulaye Touré bismillah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 وتحييني وتطول عمري به فيك وفيه صلى الله تعالى عليه وسلم آمين آمين يا رب العالمين واجعل هذه القصيدة التي أخذتها منه حسنا من حسونك التي من دخل في واحد منها أمن من عذابك ومكرك أبدا وبارك لي فيها ولكل من حفظها أو حملها بركة تقي كل سوء في الدارين أبدا وخاني أفيس خائر جل مانع جميع الأسى والخير لليوم تائه وخاني حفيس خائر جل مانع جميع الأسى والخير لليوم طائه أجارني القهار من جملة العدا وخانتهم أرماهم والمدافع لو جل كل وهم وربي وعافسي به ينتفي عن البلاء والوخائهم لو سرت عبدا والمخفى وسيلتي وأصابه أسدى أهادي أباره هو الله يعميني ويعمي جميع ما ليختار في الدارين والله واسع يقيني الأذى فضلا ويعطيني المنى به تنتفي دهرا لغيري قواته حليم حكيم قد حماني بحكمة ويكفي جنابي شر ما هو واقع صلاة وتسليما من الله أبتغي لمن كان بالطاعات عبدا يساره محمد المنجي دواما خديمه مع الآل والأصحاب بنعم المطاوه كريم به أرجو من الله حسمة وعافية الدارين والله نافه من الله رب الناس أرجو سعادة وأن يقبل الأعمال والله رافه نجاتي وإن جائي وأوس استقامة وعاملها بالله والقلب قانه إلى الله بالقرآن والسنة التي هدتني صرفت الكل والقلب خاشه لو سرت بالقرآن عبدا خديما من له خدمتي شوقا له وهو شافع نبي الهدى بحر ندى ضيق العدا من الجود ينفي الفقر وسيف قاده إلى المصطفى خير برايا محمد صلاة من الله الذي هو جامع سلام على الماحي مع الرسل والملا من الواهي القهار من هو مانع سبحان ربك رب العزة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 lépp luy ndamul sëñ tubaa ci lay xëy ci lay gont waaye dama dañoo wax démb ci ginnaaw bi ñu yaatalee liggéey bi taxawal ay commission ñu am commission bu ñu ci neex boo xam dañ koo dugal ci biir communication jiital sëñ Gànna mi mu nekk coordinateur sëñ Fallou Galassi la di coordinateur topp ci moom ci communication bi ñu boole la ci ngay sunu jëwriñ di sunu waajur sëñ Saliou sàmm sëñ Abdoulaye Diop Bichri Imam Cheikh Gueye sëñ Khadim Ndiaye Kayar borom xam-xam bokk ci di saytu communication bi ngir yaatalug sëñ Youssou Diop ndax bi mu coordonné loo sëñ ci yaatal gi moo waral lii lépp am mbokki taalibe yi seetaan itam ñu xam ni plateau bi ni mu amee fii ci Touba noonu lay amee foo ca Ndakaaru ci ci nii ñu ko defee noonu lañ koy defee waate muy plateau bu mag ngir waajale ko bis bi ñuy fàttali itam ne ma nga ca régie ba moom it di jël yi nekk ci biir mhm. eh, réseaux sociaux yi ndax niñ ko waxee léegi set site yëpp ñu ngi koy jël mhm. di ko reprendre ngir yaatal liggéey bi kon eh, danañ ko jël moom itam ci régie ba danañu indil question yi nga xam mbokki taalibe yi danañ koy jàllale di ko laaj ñi ci plateau bi ñu la ko joxee di nga ko mën a dittal mbokk yi waaye sëñ Bousra tey question bu diis la question bu la ci ko xam ni ay turam day varier jeufam day varier moment bu nek ak ni muy tudd ñu jek jek na la moy kan lolu question la bo xam ni nii dafa lim rum lim ëmb da bari tay buñu jek jek ko ne la kan moy seigne Touba nga mën nu ko nga mën nu mandar galal bo mi ko laaje ci euh, assalamu alaykum wa rahmatullah alayka salaam wa rahmatullah <laughs> euh, ndeysaan bég lol sama xol sedd guy ma ngi nuyu bokk talibé yëpp bokki yi fuñu mëna nek ci biir réew mi ak biti réew mi di ziyaare Cheikh Mouhamadul Muntaxa mi yàlla dénk jamono ji di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér eh, te lépp lu mu sembal sëñ tubaab mu yeggale ko na mu ko bëggee ànd kook rakkam yu baax yi ak murit saari xam yi ak kudib jullit noo ngi nuyu bu baax jëwriñu kër gi mu tekk nekk tey muy daara sëñ tubaa ji di daara Hizbut di sëriñ Yuusu Jóob mm-hmm. di ko ñaanal yàlla sunu borom risalatu bii nga xam ne moom la nangoo ci sëriñ Atuman man Atu Atu euh, Diagne jàmbaar ji murid saadix ba yàlla na suñu borom dolli yeesal ay leeram te taas ci barkeem te liggéey bii moom sëriñ Yuusu mi mu am ci loo xam ni euh, fa ay xel maqis lay doon mm-hmm. kaw njortam mm-hmm. te rafet nañ ci njort bu baax a baax mm-hmm. ndax moom kat sëriñ be ko imposel boppam tànnal ko boppam joxoñ ko mbooloo mi loolu itam daana dal ba tàyyi ku def ni mu def mu yàgg a toppe mhm. te fakkataloo ki sa kanam di ñaan ci daraje sëñ tubaa liggéey bi itam yàlla na ci am ndam di ziyaare bu baax a baax a baax sëriñ Hamsatu Mbàkke Asadul Xadiim mi nga xam ni bi sëñ bi yëkkatee liggéey bi moo teg ci kanamam ku ne xam na ni jox na xale ga ka koyatoon ndax moom dafa jóg rek féete xaside yi di ko jàng di ko mokkal di ko bind ci loxoom mhm. lu ci ma sa xam ci lu baax it yaatal na ko mhm. waaye sëriñ Chouaïbou mooy baaxam mooy baayam mhm. ku ne xam na ni kooku du nëbb njariñ parce mhm. que sëñ Tuubaa fekk ko ci xasida yi baayam yu baax yi mu teel yëpp itam euh, joxoon ko boobu cër joxoon ko wàccuwaay ñu ñaan ci barkeb sëñ Tuubaa bis bi yàlla na ci dollee am ndam amiin ngi leen di nuyu bu baax yéen ñi ma bokkal jataay bi kenn ku ci nekk déglu woon ko gënal ma fuuf di wax mu di ma déglu nuy ñaan ci barkeb Serigne tubaa nu ñi ñëpp mhm. jataay bii nu fi am nu mën a toll yàlla na ci ci amiin ci barke Serigne Touba amiin euh, da nga laaj ni ma mhm. kan mooy sëñ tubaa mhm. bu fekkee dama lay tontoo ni nga ma laajee ci làkk wolof fii nga ma ko laaj dama naan sëñ Touba mooy bu jafee bu jafee waa bu jafee rek mooy Serigne Touba buñ demee ba pexe pexe amatul xamatoo foo jëm bu jafee rek Serigne Touba mooy bu jafee <laughs> mooy bu jafee bu jafee rek mooy Sëriñ Tuubaa waaw loolu mooy aw turam ci wolof bu jafee boo xamatul loo foo ne xamatoo foo jëm gàcce dëgg mal la mbaa jafe-jafe mbaa naqar mbaa mbëbb ubbu bu jafee daal mooy Sëriñ Tuubaa mooy bu jafee saa yu na jon rek moom waaye nag dafa waxoon moom ni Mbàkke Juuf mu ne ko Mbàkke mu ne ko mënee sumaa xam ne ko képp koo xam ne kii yaa ngi may wut a xam mhm. min tarixil askiyati ci yoonu xiyaas fa huwa acalu naasi bii kookee mooy ki ma gën a yéene ci bindee réere ci bindee fi Mbàkke Juuf mu ne ko Mbàkke mu ne ko keroog bi jant bi jëkkee tenk ci penku bii jëm sow bi ba su tey bii ku ma mës ku wut a xam yaa ma jëkk gën a réere nekkuma ciy feggu lees man a xam ci man mooy jaamu yàlla laa boo xam ne bi moom a méngool boppam di abdun lillahi هو قديم لرسوله صلى الله عليه وسلم موي جامو خامني با خولے بامو فيغني با بيغن كو نوبي گيس ليمو في واخ اك ليمو في ديف اك فيمو في ديم اك ليمو في بيند اك ليمو في ديفار لورو خاجول سي دوم ادم خاجول سي توندو دوم ادم يونتي فامون نيت جوني ات با جوني ات اك نانغام ديفو ني فلو تول نون اما شرع على فين تمباك بول تيتو غاربه sëñ Mat la mu Jóob nee na ab jàllekat la moo tax ci jàllukaay ba la feeñee lépp luñ di amit ci ay bokk mu am ko ñu xam kuy ndeyam ci zaahir xam baayam xam ay bokkam mu baax yi bokk lool néeg bi mu feeñ itam lu baax yàgg fee feeñ mm-hmm. kilifa yàgg fee feeñ mm-hmm. ay ay maamam ci wàllu ndeyam ak ci wàllu baayam ñëpp di ay tànneef mm-hmm. di ay sang mu feeñ ba mu feeñee rek la gën ñëpp jaaxal ñëpp لبم دي كل كليتي معجزة تعقرت وخير الخيرات لديك دخرت ما أم بعدين فنوي عندنا يوم ده كفكر يوم أنك ولا تكتوت رك لفي أمام يوم سخن جارس الله متعال وعي مسك وفات مك نبي توف شيء يوم وعي يوم مي برك يوم مي يم سخن سي ناو كلول فن كلول غرم كلول ndax liggey bi nga xamni liggeyel nako ko ci yir ko bam mu ba të làmmiñ te cat. ndeyam dem ci at yu néew way lu mu wara def def nako def na lépp lu gor gu bax di def mom soxna jaar defal ko yàlla ba am ngërëmal yàlla tuddu jaaratul ilahi lu jigen ju bax yi def mu def ko muy dem kër ak sonal borom këram ak jaamu yàlla ba am lu bax kooku mooy ndeyam sëñ Mbàkke Mor Anta Sali di bayam di ko xamni ki Cheikh Mouhamadul Bachir baye serigne muntakha mi neena kana aliman faqihan nabilan يطيه مسلمون إما من يحبه الأمراء والملوك لما تحقه من علمه ورعه سيمور أنت سري محمد كليفة بخوله دوم جيد سنتوا أك مغم جيد برب سام أك ركمي مو أم لكو تنبلي سنكا سيخ بفاتي ميمك تي أي ركم بج سنما سامبا كان نكو سيو نيوتي بل نكو سيو نيوتي داجيك سنتوا بارك تخنو من أم كليفة وعي كان كونك أتن جامونو مو فنش ديغنتي بابو نيدي أي بوكم داركو تنوني بوكم يي تي من جهاتي أبيه ni la bokkam yi kël jihati waalidatihi bokkam yi nga xam ne ci wetu ndeyam dam noonu la ñu mel muy ko mel ni ñaari sëñ Mbàkke yi ak sa ñaari sëñ ma sàmba faat yéeg sëñ ma sàmba kan yéeg sëñ Mbàkke bu soo mu mag maag sëñ Seexu bu soo ñooñu nga xam ni sëñ bu soo be nijaayam ku mu jur nga xam ne wàllu yu kaamil ñooñu di bokki sañ Tuubaa mu feeñ foofu feeñ rek yàgg gën rek yàgg am yaakaar rekk ñëpp mu feñ ci digënté bokkam yoyu ba am fanweeri at nek ak bayam diko ko lol di ko lol diko mom diko bokkam mu sis koo rek mel na mhm. mu musa gesu adina ben yoon ba am fanweeri at sos yoonu mourid ci jëm jo xamni ji borom der bu ñuul nga feñ ci réew mu ajam té ñu xam nit ku ñuul moy lan légui la nit ku ñuul ñemee nit ku weex waaye amut won nit ku ñuul musta am culture particulière musta am identité particulière bo xamni bi lu mu dugg rek diko wut mom nit ku ñuul xasuma sama bopp waaye loolu moo nu dal loolu ma sa dugg rek di ko wut bala noo am loola ñàkk suñu bopp noppi door koo am mhm. dañuy jaawale xam-xam bi ñuy wut ci naar yi ak naar bi ci boppam di jaawale xam bi ñuy wut ci tubaab bi ak tubaab bi ci boppam loolu moo tax bari na nit ku ñuul xox koo xam ne kii ba mu jàngee tubaab rek ba dégg tubaab mën a denc tubaab keroog lu tubbi doonu bu yéefar te lii may wax ko xool histoire dañ ko xam bu baax sëñ tubaa tax nu mel nii nu mel ku nu gis teg nu barab moo tax nu am sunu bopp am sunu culture am sunu identité doon ay jullit te duñ doon ab naar duñ doon ab dara lu dul ab sénégalais typique loolu sëñ tubaa tax nu am ko ci ñeent fukki at mu sos yoonu fanweer at mu sos yoonu murit ci réew mii lu ne feeñ ci ku baax ku ne feeñ ku baax ku ne jaar su ba jàll waaye mu gën ñëpp rek moo tax Cheikh Ibra Fall da koo mas a joxoñ ni ko sëñ Bamba jërëjëf yow de ruslo wuma joxo joxoo ñu la ba ñepp seen sama joxon bi man la yow ñuy dox di dox ba yag muy keneen ba yow ba tay rek bis bo xey rek muy gëna doon yow ba tey ji rek tay la gëna doon mom mm-hmm. ko ki moy cheikh ahmadul Khadim, dem ci geeg gi ci ñeen fukki atam kep ko xamni ki dajé nga fek les colonialistes al mustamirun al francis lu sa njambar bari bari bari lu sa katan bari bari lu sa doole bari bari lu sa baatin bari bari dir bu kat ngay and ak ñom fatou damay faral di wax te di ko répété bu baax di ci def comme mën a doon dama ni tubaab yi ñoo man yonent yi tubaab yi ñoo man wàllu yi ku jàpp jaan doo faale jiit mhm. tubaab yi ñoo man yonent yi fuuf ñu dajeeg moom jàpp ko ci ñeent fukki atam ànd ak moom juróom-ñetti weer dans les îles fantômes du Lagoué ci Gabon gii ku dem Gabon xam ne sëñ Touba amul morom réew mi dafa am superficie te amul densité ca ba mu fay dem réew ma dafa yaatu bu baax te nit ñi fu nañu bëcc bëccee ko fu nañu las ko fa lu nañu def ko fa waaye sëñ tubaa ànd ak ñoom musta wonk musta raf musta daw nam meloon bañ koy jàpp rek na la meloon na la ma sa mel naka jëkk seeni loxo moo tax anabtu iswaajahuni bil azalakumu warul tubul kullu lii misal ma masakini anni furaade wa masne adbaru wa humu summun wa bukkumun wa umyun ka shayatini tanfihim dahra an durri wa tansuruni bihim alayhim xoola ñaari damir yooyu bihim alayhim wa fawxa sooli tootini gaynde gaynde la moom sëriñ bi wéet musu koo tere xeex jamono musu koo soppi barab musu koo soppi circonstance musu koo soppi keroog bi mu dellusee ci géej gi danem seex sëñ gaawaan ne ko mbàkke mu ne ko dellusi naa waaye bañu ma kenn ku topp samay tànk musuma saalit fenn amul dara looy nettali ci mbiram rek ba jub ko dëpp mbaa nga teggi mbaa nga tonni léppam lañ mën a mhm. dafa wax ni sama saayir ak sama baatin lépp dëppoo li jammina li jammilana zahiri wa baatini bi taahiri yaa maahiyan kabairi bi jaahi wala mi bi ni sama kaw mel rek ni la sama biir mel mu dellu si ñu dàppati ko yóbbu gànnaar yóbbu ko fu ne nëgës chandoora sontu muxsin jarraara xumaaga fu ne ñu yóbbu ko fa ca naar yaag fóore ya moo tax daana wax ni yetti géej yi maa ci xuus ba jàll te aw mab jam-jam ñu ne ko gan a gan a gan mu ni maa xuus ci kajoor ba jàll te jeexuma jeexaarloowuma maa xuus ci diingatub gànnaar ba jàll te masala jëmuma maa xuus ci xabalum tubaab yi xabalum tubaab yi ba jàll dellu si fii mel na ma meloon jéggal leen juróom-ñaar kat juróom la am ci kaw suuf ci lu ñu xam